bunt bi bàyyi deen balax ñaan yàlla suñ borom mu bool ñu jéggal ñi ñaanal suñ Muntaxa mu yàgg bi lool te ànd ñaanal Sëriñ Bara Touré di ñaanal soxna ummi galas mii moom sëñ fàllu mu gudd fan ak ànd gu wér ginnaaw bi nag eh, mbokki taalibe yi seet si woon lii du tay dong yàgg na bi set bu ma ko waxee mu feeñal mbokk gi bi set nañ fi ñëw mu ne ko sëñ siyaat yoro def bi bëgg a ñëw ak sëñ asan eh, ak sëñ Thierno sëñ Moussa Diouf Lambaay ak ñeneen ak sëñ Mbacke ñëwoon na fi jiitoon na lii bi ñuy yi nga ne duñ fi ay ci ay bokk lañ fi waaw buñ fi wut si woon leneen danañ ko am te fii barab bu ñuy nangoo ñaan la waaw ñu ngi ñaan nag li ñu tax a jóg mooy eh, changement président de la république ñuy suñ coordinateur suñ kii bii di jumaay waaw jumaay président jumaay fay président moom lañ bëgg daal eh, moom moom lañ tax a jógit bëgg changement lañ bëgg ci réew mi changement li fi nekk lañ bëgg a jël génne indi fi beneen changement procès lañ wax procès buy dox kon nag du nit ñu ngi ñaanal sëñ borom dool bu baax a baax li ngeen bëgg daal yéen a ko xam ndax barab bii li fi ñeen ñëw ngeen fi ñëw du hasard waaw nag moom ay ay soxna saa ngi nii toog yéen a ngi nii sëñ Asana ngi nii di léppam sëñ sëñ Cheikh ak ñeneen ñi kon nag moom wax jër muy gudd waaw li li li daal xam nañ ko Mbàkke te fii dañ faji aajo yaa fi sëñ Tuubaa di sëñ di kon nag Mbacke mi ngi nii Mbacke soxna laa doon wax sa waaw ah, xanaa wax ji waaw fale ko jumaa yi jërëjëf mm-hmm. ngi nuyu baax baax di siyaar di jottali nuyoo délégation bi muy ci coalition Diomaye 2024 ñëw ji ñëw nag ni ko sëriñ Abo rek njëkkul tey jaaroon nañ fi am ndam ñu jaaraat fi kon nag séntuwaat nañu ndam ndax ci élection législative yi jàll euh, Serigne Cheikh coro mi ak Soxna Fatma mi bokkoon nañu ci ñi ñu tànnoon ci département bi ngir ñu di ñu teewal ca pencum ndaw réew ma ba ma leen waxee ni nañ ñëw Madina dañ ma koo nangul ndax xam na xam na li fi ne ñu ñëw fi gis la nga am foo jaar ñoom ba lañ bëgg am ko loolee nag moo tax bi ñu ñëwee ñu ne bala ñoo toog ci penc mi nañ egg si joxe seenu ziar ziar boobu nag ñu ngi ciy jiital Serigne Baara mi nga xam ne moo fi toog toogaay bi Serigne Mor di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi ko wér ak mboolem njaboot gi kon nag Mbacke Balla li sëñ Abo wax rek euh, coalition li ko tax a jóg moo ñu fas yéene ku jàppale ku ne ñaanal te jàppale ñu ci sari baatin ba Diomaye nekk président de la République du Sénégal su ko nekkee ba noppi nag. sunu commune biir commune Touba moom it def cee am wàll ca ñoom ñi am nañ ci yéene ndax ñoom ñi kat biñ leen di biñ leen di fàcc ci député yi ci ñoom laa mos a déggee député bu taxaw bu taxaw assemblée tudd Touba Fall tudd Touba Fall feeñ fa kon nag loola ñi ngi am yaakaar si ni bu Diomaye nekkee président waaw aussi kon bu Diomaye nekkee président ñoom ñi yaakaar naa ne du duñu ginnaawal réew mi waaye duñ ginnaawal département bi waaye rawatina nag commune bii di bii di commune Touba nga nekk fi di seen bàjjan ci ñii di yaay ci ñii nga na nga ko waxee woon rek say doom rek fi nekk kon nag kon nag Mbàkke jërëjëf kon nag ñu ngi wàcce foofu kàddu gi euh, Serigne Cheikh bu fekkee ne ni amul luñ ciy dolliwaat rek kon kon nu jox Serigne Cheikh Mbacke Serigne Cheikh Thioro Mbacké honorable député ndax kom ni ko suñu Abdou Sakor waxee rek bi yàlla dogalee ñuy ñuy wut biñ ñëwee fii liñ njëkk def ci mooy sàkku ci yow ñaan ndax leeru Cheikh Mouhamadou Fadil moom fuñ ko gis dañuy am yaqin ne suñ ko tàllalee suñ loxo luñ lu mu ñaan suñ borom dina ko def mhm. te it foofu nga toll ci ñun ndax ni ko ñëpp waxee rek ñenn ñi bàjjen ngay ne ci ñoom ñenn ñi waajur ngay ne ci ñoom ñenn ñi sëriñ ngay ne ñoom kenn ki mag ngay ne ci moom <laughs> muy am di xam naa gone la waaye doom mag la di <laughs> am di Mustafa kon ñu ngi lay ñaan suñu borom nga yàgg fi loolu te wér ndax bërëb bi moom bërëbu sàkkukaay ñaan la ndax biñ fi ñëwee sëñ Abo mi na ñu bërëb barkeel yi fi nekk yëpp ñu ñaan fi suñ soxla jàpp naa ne ni ñu ko ñaane woon noonu la ñu ko suñu borom defalee ñuy ñëwaat tamit yeneen ñëwaat boo xamante ni wuute naag bañ ñëwoon ndax lii tànn nañ jiitum réew la suñ candidat bi ñu yàlla booleel tamit Bassirou Diomaye Faye ku ko xam di nga ko xam ci diine ak bëgg lu baax muy doomi baykat tamit nag di doomi sàmmkat ndax karawaan bi fi jaar bëri na lool njàmbat li benn la mooy fii sori na ñàkk na ay yoon mais man dama naan jàngat biñ ci war a am ñun ñëpp mooy état Sénégal ni mu gannaawale département Mbacké ñun jàngat boobu lañ ci war a njëkk am ndax mooy département bi gën a ñàkk infrastructure ci Sénégal ndax commune bu toll ne Touba Fall doo fi gis benn yoon boo xamante ni yoon bu ñuul la ñu ne lii département état Sénégal moo ko kon jàpp naa ne loolu yoon la boo xamante ni ñun ñëpp dañ ko jàmbat bi ñu fi ñëwee nag bi ñu sàkku ñaan dañoo sàkku ñaan en tant que nekk ay député de peuple ku xool euh, assemblée nationale bi député yi nga xamante ni faloon nañ leen jàpp naa ne bu dee ay député yu jógee ci Pastef de ay yaakaar naa ay regret wuru ci am ku ci nekk gis na honorable député Soxna Fatou Mbodj mi taxaw na assemblée nationale ba tey tudd yoonu Touba Fall te député loolu mooy mu wax manquement yi nga xam ne ñu am ci commune bu Mbacké kon nag soxna si ñu ngi waat ñaan nga ñaanal Bassirou Diomaye Faye ndax yaakaar ji ñu amoon ci président Ousmane Sonko yaakaar jooju rek lañ am ci moom ndax bu doon melut na mu war a mel bu ko Ousmane tànnee ñun gor yi duñu ànd ak moom du campagne ndax ëpp na ñu ko Moussa Diouf Lambaye di wax rek politicien yi moom kenn moo ma jaral ma di ko défendre ba lu xam ci moom xam ci moom xam nañ ne Bassirou Diomaye li ne ci Ousmane rek moo ne ci kon ñu ngi leen a garanti ne daal Bassirou Diomaye du koy wor du koy wax lu mu gëmul du koy dig lu mu gëmul tey am nañ fulla ju toll ni duñ falati nit mukk muy gannaawal département loolu moom suñuy engagement la suñuy responsabilité ndax département bi bu buñ demee Touba it ñun dina ci suñu jàmm dar ci itali yu baax bëri na commune yoo xamante ni ñëwuñ ci seen jàmm la preuve démb fi ñu ndogoo wane na ko commune bu Ndioumane bi Ndogo ku gis démb commune bu Ndioumane day mel ne année mille neuf cent soixante ñoom moom la ñu dund ba léegi te ku fa nekkoon ñu ne lii am na ci Sénégal ci ñu am na délégation bi quatre-vingt-dix pour ci département bi te ba léegi ni mi ngi am soxna si kon daal ñu ngi lay ñaanal yàlla suñu borom yàggal la fi mais nga ñaanal suñu candidat bi yaakaar yi ci am ci moom suñu borom bañ ko tas te gëm nañ ne boo ko ñaanee suñu borom dina ko def ndax waa kër Sëñ Tuubaa yi moom ku xam dëgg-dëgg jigéen ñi ngay gën a ragal ci góor ñi waaw ndax Sëñ Abdoulaye daal ko wax ñun ñi li ñu nekk ay xale suñu waajur daan fa naan boo amee looy ñaan demal ñaanlu ko ci wàllu suñu kon xam nañ ne boo ñaanalee président Bassirou Diomaye suñu borom dina ko dénk réew mi kon ñu ngi lay ñaan nga yàgg fi loolu te ñaanal ñu ko mu nekk wenn voyage nag wenn voyage mooy premier tour ndax campagne met na met boo xamante ne deuxième tour musiba la <laughs> jërëjëf Mbacke Balla <laughs> ah, waaw ah, ah, jërëjëf Mbacke jërëjëf ah. Mbacke. man man sëñ bi ma di gis naa sukk ñett dama dama indi fii. ci ci nekkam fi. bon nag sëñ Thiès mi bàyyam sama sama santoo bi wax ak moom eh, day day jooy ñibbi <laughs> day jooy ñibbi ne bu kàddu wax day ma sëñ Fall la dee def loolu xam nañ ko bu baax kon nag ñoo ñaan ci barka Sëriñ Tuuba ak barka Sëriñ Fallu leen tax a jóg gis bi yàlla na ko saa borom defal te jomaa yàlla yàlla gis réew mi te ñun ñi fi nekk itam ak kàttan moom nan ko jox ndax xam nañ ëllëg moom benn baat benn baat dafa ne waaw bu soobee yàlla mbàkk baal di ngeen bëgg mu leen ko bu soobee yàlla saa borom jàppale te musal leen sàmm leen te leen comme si Ahmadou Fadal ah, na buy ndam bu soobee yàlla dana am ndam bu soobee yàlla dana am ndam moom mm-hmm. ah. kay amaam kay ah kër yëpp ah, man waaw man ah, naan ànd fa kër gi ah, ah xam nga sëñ Jaxate sëñ Modou Faty sëñ Gaawane a bokk lépp ànd nañ fa kër daal ñu def fa la ñuy màggale kat nan bu baax Mbàkke ma xool seet guy ndax samay doom doo nga ak samay sët moo fi ak ak ak samay rak kon nag yàlla saabon ba jàppale barke Cheikh Amadou Fadel ne may ndam te jumaa ji fa mu bëgg a yëg yàlla ko yàlla